di leen gërëm ci seen émission gox bi ñu fas yéene ànd ak tey ki nga xam ni moom mooy présidente Monique fay càndum nekk coordonnatrice plateforme ànd femme ànd jéego nekk itam vice président union mondiale des organisations féminines catholiques soxna Monique fay Thiam euh, Thiandoum ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. alors te ñu fas yéene waxtaanee rek li nga xam ne moom moo jëm ci plateforme bi waaye laata loolu euh, vendredi bi weesu njiitu réew mi dafa dalaloon organisation femme jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo doon xeex wàllum euh, criminalisation viole bi am ngeen ci li nga xam ne li ngeen bëggoon njiitu réew mi promulgué na ko tey lan ngeen di wax mun nañ jàpp ni ab euh, doon ndam la woon victoire la da ngeen yéen a ngi ci yuuku di ci bàkku. <laughs> maa ngi nuyu suñu mbokk auditeur ak auditrice yëpp mhm. di leen di souhaiter meilleurs vœux mhm. ci atum 2020 bi ñu door mhm. ni nga ko waxee keroog vendredi euh, le chef de l'État recevoir na jigéen ñi yàlla def ma bokkoon ci ñi demoon foofu palais te bi ñu fa demee dalal na sunu xel bu baax a baax ndax ku nekk xam na ne at yi mettitalu jigéen yi dafa gën a dar tar <laughs> surtout mbirum viol bi mu dalal sunu xel ci loi bi nga xam ne léegi tëral nañu ko te dig ñu ne te xam nañ ne dina ko def dina gunge jigéen ñi bu baax a baax a baax ndax mettital boobu ñu mën a tàggoo ak moom ñu ngi ko ci sant bu baax di sant itamit jigéen yi ndax combat la dafa yàgg waaw <laughs> jigéen yi dañ koo yàgg xeex ñu ciy gërëm surtout femmes juristes yi mhm. ak euh, femmes députés yi mhm. nga xam ne ñoom ñoo àggale combat bi mhm. waaw ñoom ñoo àggale combat bi belluwaa boobu génn ñu ciy sant yàlla bu maintenant promulgué nañ ko waaye tamit ndax jotul ñu bind loi bi ci euh, nit ku nekk làkk boo gën a déggee ngir mu gën a yomb ci askan wi président wax na ko keroog pale nee fokk euh, loi bi ñu vulgariser ko sensibiliser ci nit ñi mhm. te comme Sénégal la ñu nekk mhm. làkk yi bare na mhm. kon fokk ñu jël waa boobu euh, firi ko ci làkk yi nga xamante ne moom lañu am fii ci réew mi ba ku nekk dégg ko ku nekk bañ a wax comme ni mu ko waxee rek bu kenn jógati ne xaw ma woon kon euh, comme lu dafa nekk loo xamante ne dañ ko war a tëral foog nit ñi ñëpp xam ko. Mhm. muy góor ñi muy jigéen ñi. Mhm. ndax jigéen ñi tamit léeg-léeg mu am ñoo xam ne. Mhm. mbir mi day dal seen kaw. waaye dañuy ragal. duñu ko wax. kon fi mu nekk muy góor muy jigéen ku nekk. war na xam ne luwaa bi. nii lañu ko tërale te ñëpp ciy bokk. àtte. te yaakaar ngeen ne dina ko yeggali. dina ko yeggale incha allah. loolu ab pàcc la woon ci waxtaan bi tey nag li ñu gën a yitteel moo di plateforme des femmes ànd jéego. tey boo ñu doon wax ci plateforme bi Andi Jéego tur bi fu naka la ñëwee rek ngeen jël tur bi ne Andi Jéego lan ngeen bëgg a wax ci plateforme bi. waaw euh, plateforme bi. Mhm. Euh, suñu benn sœur. Mhm. madame le ministre Zahra Iyane Thiam moo ko moo amoon xalaat. Mhm. mu nekk xalaat bu rafet mu teg ko. première rencontre bi mu ngi amoon. le 2 mai quinze mhm. ñu defoon ko fii Dakar. Mhm. mu yaataloon ci woo ci woo ci ay jigéen. Mhm. dans premier temps li taxoon mu mu xalaat ne daf koy war na ko samp. mooy booba dañuy wax plan Sénégal émergent. mu ci doon wax nag di utiliser surtout des termes techniques. moo mu ne comme man jigéen laa. te jigéen ñi xëy na ñu ngi ci kaw waaye itam ñu ngi ci base bi. naa yaatal ba ñëpp xam lan la. kon noonu la ñu doore mhm. mu invité ay moromam yu bare mhm. ñuy daje mhm. di waxtaan ba bi ñu waree teg nag ñu gis ne ndax ci biir waxtaan bi dañu gis ne euh, am na yu bare yoo xamante ne jigéen ñi ñu ngi koy def mais am na lu bare loo xam ne dafa desoon mooy lan bon li li li desoon mooy renforcement de capacité par rapport ak formation femmes yi ndax formation lu am solo la moom mooy dëgëral xam-xamu nit mhm. gannaaw bu ko bu boo ci amee xam-xam ba pare aussi mhm. kon formation boobu mooy ñëw renforcer la mhm. ci bépp xam-xam boo am bi ngeen ko doon teg nekkul woon loo xam ne yomboon na ngir ngeen sóobu si ngir nga xam ni gën a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi ndax yomboon na jéego yi ba ngeen ko doon teg waa xam nga toujours booy door yenn saay groupe bu ndaw lay nekk kon dañu nekkoon benn groupe boo xam ne dañ daan daje mhm. dañ daan réunion sax yenn saay ba guddi mhm. euh, ñuy daje di waxtaan mhm. di yaatal di yaatal ndax plateforme bi organisation nationale la yemul Dakar yemul quatorze régions yëpp ñëpp ñu ngi ci biir te loolu yaatal moo ko indi di fàttali mbokk auditeurs yi yow Thiès nga jóge ñëw def ci émission bi mu nekk lu am solo mu bàyyi la nga continuer waaw kon bi ñu dajee noonu di waxtaan di yaatal xam ne ñun ñëpp jigéen ñi benn lañu. Mhm. dañu nekk euh, ay citoyen mhm. di sóobu ci liggéey réew mi aussi. Mhm. ci mbirum koom-koom. kon ñu yaatala yaatala yaatal ba bi ñu ne léegi nag. bu ñu defee groupe. foog ñu am tur. ci la ne nañu nañu ko tudde ànd jéego. ndax dañoo ànd. suñu àndee nag comme li ñu nas yëpp. lu bare la mhm. foog nag ñuy def ay jéego mhm. di def ay jéego ndax jéego yooyu mooy tax ba boo yëkkatee sa tànk mhm. war a jëm kanam itam ngay xool fi ngay teg sa tànk boobu fan la nga soog a doxaat nag bu ko defee loolu mooy indi Euh, succès daal ñu avancé. di fàttali mbokk auditeurs yi rek mën nañ jub euh, dugg jibal seen xalaat ci 88 628 84 84 wala 88. cent 628 85 85 wala 88 628 86 86 ma koy fàttali rek Thiès nga jóge tey bu ne plateforme ànd jéego ci diwaanu Thiès nu mu mel ndax askan wi ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi yiy yëngu ci wàllum développement tey gis nañ seen bopp ci plateforme bi ba yenn action yi nga xam ne yéen a ngi koy déroulé yéen a ngi ciy boole ñi nga xam ne ñoom ñoo di femmes yi. Euh, waa Thiès gis nañ ko bu baax a baax. <laughs> ndax euh, kuréel boo koy samp mhm. pour nga am ay kayit mhm. dañoo nekk dans un état de droit da ngay tenir lu ñuy wax assemblée général constitutive mhm. assemblée général boobu ñu ngi ko defee woon Thiès kon nga gis ne dakaar lañu la sosoo waaye ba ñu ne assemblée koy décentraliser daal waaw dañ ko décentraliser yóbbu ko cees te ba ñu demee Thiès aussi la ñu nattoo ne mooy ñëw ci nit dafa wees suñu njort ndax mhm. saal ba dafa mujj fees ba ñun xamuñu nu ñuy def jigéen ñi hmm. kon mu nekk kon loo xamante ne mhm. euh, mën nañu ne vulgariser nañu mhm. te bi ñu si jógee aussi gis nañ ci suñu bopp bu baax ndax euh, lu xew dañuy ñëw bu dee Dakar la dañuy ñëw euh, formation yi su ma bëggee joxe exemple plateforme bi ci activité yi. Mhm. dañu déroulé woon ay ay formation dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw. waaw mhm. kon ñun gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax. Mhm. teewul nag ñoo ngi continuer liggéey bi. ndax dañu ne ànd. jéego di def ay jéego. kon ñu ngi continuer liggéey bi ba nga xamante ne. muy Thiès muy beneen région itamit. jigéen ñi mën cee gis seen bopp bu baax a baax. yaa ngi ko doon junju léegi li jëm ci wàllum formation yi bu nu ci xibaar rekk li nga xam ni moom moo jëm ci formation yi amaloon ngeen fi mbirum assemblée générale. boo xam ne ci plateforme ànd jéego bi la euh, ginnaaw ba ngeen amalee li ni mel sax euh, mu di mise en œuvre politique PSE bi jigéen ñi ñu jël ci plateforme ànd jéego mu nekk ab réussite boo xam ne ba ñooñ ñi nga xam ne ñoo di acteurs yi dañ leen tànn fësal leen ni yéen yéen a ngi doxal li nga xam ne moom moo jëm ci PSE bi liggéey boobu nekkoon na nu mu mel mën nga ñu expliquer loolu ci loolu waaw bi ñuy bu ñu sos bi ñu sosee plateforme bi mhm. xam nga wax naa la sànq ne dafa tombeek mhm. avènement PSE bi mhm. ñu ne waa PSE mooy lan ndax comme ni ma la ko waxee ay termes techniques presque lañ daan utiliser ñu ci bare nag xamuñu ko ñu ne kon léegi nañu dajale jigéen ñi ñu def benn atelier atelier boobu ñu ngi ko defoon le 16 janvier defe ko King Fahd président moo ñu ko ubbiloon. Mhm. le président Macky Sall moo ñëwoon ubbil ñu ko. Mhm. te ci journée boobu balaa journée boobu déjà. Mhm. defoon nañu. ay tàggatu. une phase préparatoire. woowoon des techniciens. ñu jëloon nag euh, lu mel ni secteurs yi. lu mel ni agriculture. jëloon pêche. jëloon euh, habitat. jëloon commerce. Mhm. presque jëloon nañ daal euh, ay ay kii ay secteurs yu baree bare. Mhm. expliquer ko jigéen ñi. Mhm. defoon ko su forme d'atelier. def ko ay groupe liggéey ci bi ñu pare ñu daal di daje def la remontée de de kii du travail. de groupe. te mu nekkoon lu intéressant élargiroon ko sax invité woon ci woon invité woon ci aussi mhm. ay ay citoyens ñëwoon aussi mhm. fekkee liggéey boobu mhm. te bi ngeen jógee ci loolu tamit tàggat nañ leen ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum renforcement capacité ndax da ñu bari dañuy jàpp ni mbootaay yi dañuy yëngu rek di daje nii waaye yéen a ngi def ay formation di jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di jigéen yi bu ñu jëlee ci benn secteur rek li ci mel ni commerce yéen a ciy yëngu bu baax ndax mën nga ñu wax processus yi ngeen di def ba jàppale ñi nga xam ni ñoom ñoo di jigéen ñi ci wàllum jënd ak njaay mi. waaw ci ci kii ci renforcement de de capacité boobu. Mhm. damay dugg ci formation yi d'abord parce que nee naa la looy def rek foog aussi ngay wut nooy yokk sa xam-xam. bien boo xamul nga jàng. Mhm. bi ñu tegee formation yi. Mhm. ñu génne ay modules yu bare. te ci lii nga ma laaj ni mhm. dañoo amoon benn module boo xam ne mhm. gestion des entreprises la tudd mhm. loolu ñu déroulé woon ko mu amoon mu nekkoon lu ama am solo parce que comme ni nga ko waxee jigéen ñu bare ñu ngi yëngu ku nag xam na ne jigéenu Sénégal ay jàmbaar lañu dinañu liggéey di jënd di jaay mais xëy na aussi gestion bi mooy des ni ñu war a def ba li ñuy liggéey di ci sonn ñu war cee mën a am dara di mën a natt la ñuy am moo tax ñu jëloon euh, thématique boobu dugal ko ci formation bi. Mhm. waaw léegi njëriñ li gis ngeen ko tey li nga xam ne moom moo jëm ci njënd ak njaay mi tey gis ngeen ko yéen bu baax tey. gis nañ ko parce que dafay am ay jigéen yi nga xam ne ay bénéficiaires lañu woon ci formation yi. Mhm. dañuy ñëw di di di di di témoigner. Mhm. te defe naa ne loolu jar na sant yàlla di di témoigner. am na ñoo xamante ne toujours ci formation yi ñi nga xam ne dañu defoon. Euh, transformation des céréales mhm. locales mhm. ñooñu tey am na ci ñoo xam ne ñu ngi commencé di di di di defar mhm. ubbi seen kii bu ndaw di jaay pâtisserie bi aussi defoon nañ ko ñoo ñu aussi gis nañ ci seen bopp bu baax ndax ñoom ñooy ñëwaat am na ci ñoo xam ne sax dañu defar teg di woote pour ñu ñëw xool li ñu liggéey kon ñoo ngi ciy sant yàlla bu kon donc bu ngeen bu ngeen tàggatee ba pare yéen a ngi leen di jàppale itam ci am ay jumtuwaay ngir ñoom li ñuy nekk mu ngir mu gën a mën a fës ci li nga xam ni moom moo jëm ci askan wi jàpp wax nga ko léegi jigéen ñi tooguñ parce que koo ci gis mu ngi jug di yëngu ci fànn yu ne li nga xam ne rek moom mooy damay dem ba Casamance rek li nga xam ne moo di mango bi gis nañ ni ngeen ko doon transformé di ko def ay jus di ko di ko jaay yooyu yëpp ci euh, plateforme ànd jéego bi la ba tey. waa loolu yëpp def nañu ko. <laughs> te euh, noppeeguñu ah fi ngeen jëm fan la. noppeeguñu parce que ñu ngi gën a bëgg a yaatalaat ndax. Euh, mhm. première série de formation yi nañu formé woon 1000 femmes. Mhm. waa 3FPT. ñoo leen jàppale woon sax si ñu jàppale woon di mhm. leen di nuyu au passage. ñooñu si jàppale woon. mais ba léegi demande baa ngi fi. ba léegi demande baa ngi fi te ñoo ngi presque ñoo ngi finaliser aussi beneen document boo xam ne. Euh, ay formation lay nekk mhm. suñu paree teewul ñoo ngi toog di seet ba xam ni ñuy continuer aussi di leen di accompagner mhm. xam nga bu nu waxee tamit formation yaa ngi ko doon wax sànq ndax yéen plateforme bi dafa yaatal lépp ba ci quatorze régions yi mi ngi fa raison bu ban ban raison ngeen jàpp ni tey def ngeen fa ay jéego yoo xam ni ba ni ñu ngi fësal li nga xam ni moom moo jëm ci plateforme ànd jéego bi nga xam ni def na fi ay résultats ndax di fàttali ni bu leen ba leen 3FPT joxe woon li nga xam ne moom moo jëm ci 1000 euh, kii euh, attestation yi am na li nga xam ne nag moom moo jëm ci formation ndax région yi ñoom yëgoon nañ ci sentiroon nañ ci seen bopp ba tey formation bi région bu nekk ana tey fan la yem ak lan la jotoon def. résultat yi ngeen ci doon xaar ndax gis ngeen ci seen bopp tey. waa Dramé formation yi mu ñu doon natt tey ci pourcentage. Mhm. par rapport ak participantes yi dañuy wax ne dakaar moo ëpp. Mhm. ndax lu ñu doon sogadoor la. Mhm. kon il fallait que ñu desagum fii. mais teewul am na ñu daan jóge ci région yi. di ñëw fii di ñëw. xëy na nag am na tuuti contrainte. parce que jigéen bi nga xam ne bëgg na xëy jóge ci région. Mhm. xëy na du mën a toog mhm. ndax euh, formation bi dañ ko doon dérouler ci une semaine. Mhm. du di au vendredi yenn saay mu dem ba samedi. xëy na jigéen bi nga xam ne day jóge Mbàkke. wala xëy na jigéen bi nga xam ne day jóge Matam wala Podor xëy na du am condition yi muy bàyyee këram foofu ñëw. mais am na quelque ñu doon ñëw. léegi nag ñun li ñu ci fi ñu toll nii. comme def nañu première phase bi. ñoo ngi décentraliser. résultat yi lan la woon gis ngeen ci seen bopp bu baax léegi dañuy jël mbokk moom ci euh, daal di ci ligne bi moom bu ko defee rek mu daal di àddu ci li nga xam ni moom moo jëm ci waa waxtaan bi waaye ba tey rek dañuy euh, wéyandi li nga xam ni moom moo di waxtaan bi waaye ginnaaw ba nu jógee foofu noonu euh, mi ngi law askan wi ñu ngi gën a approprié wu li nga xam ni moom moo jëm ci ay plateforme ànd jéego askan wi daa mel dañ ko jël léegi bëggal ko seen bopp ndax gis seen liggéey bi ñuy def moo tax ñu daal di kontaan ci nga xam ni moom moo jëm ci li ni mel. waaw euh, ni nga ko waxee rek noonu noonu la ame ndax formation yi ñoo ngi ci ba léegi wax naa la sànq ne jeexal nañu une première série ñoo ngi bëgg a taxawalaat beneen ci kàntanu yàlla te di ko ubbi aussi jigéen ñi ñëpp. di gërëm nag surtout jigéen ñi nga xam ne gëmoon nañ ko <laughs> jigéen ñi nga xam ne gëmoon nañu formation yooyu tey ñëw <laughs> ndax mujj bi bi muy laata jeex <laughs> nit ñi dañ daan bëgg sax tout le temps di ñëw te day fekk euh, normes yi il fallait que ñu respecter normes yi buñ ne un groupe de seize wala un groupe de vingt kon mu nekk loo xam ne dañ ko déroulé 2017 bi ba 2018 bi nii ñu joxe woon attestation yi ñu ngi ko joxe woon fële place de la nation defoon jël mbokk moom ci ligne bi rek salaamaaleykum Euh, soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. waa yaa ngi réew mi FM. yokkal yokkal baat bi tuuti. Mhm. bisimilah soxna si ñu ngi lay déglu. alors tey lan nga ñu mën a wax ci plateforme ànd jéego bi. plateforme bi Mm-hmm. allo waaw ñu ngi lay dégg. Mm-hmm. Mm-hmm. xëy na euh, li nga xam ni moom moo jëm ci réseau bi dafay xaw dagg dinañ ci ñëwaat léegi léegi yaa ngi woon fu am solo plateforme bi maa ngi la doon wax ni askan wi ñu ngi koy jëlal léegi yi teewoo ko seen bopp ndax dañu gis njëriñ bi kon di nga ko waxee rek da ngeen jógee ndakaaru léegi ndax mën nañ xalaat ni euh, di ngeen dellu ci yi nga xam ni ñoom ñoo di région yi dañuy jël mbokk moomu rek ci ligne bi salaamaaleykum. aleykum salaam. Euh, soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi tur bi ak fon yi woowee. ñu ngi lay fay sëñ bi man maa ngi tudd madame Guèye. Mhm. Fatoumata Diouf. Mhm. ñu di ma gën a woowee ci turu madame le maire. Mhm. ma bokk ci plateforme ànd jéego. soxna si tey waaw tey lan lañ la tey lan nga ñu mën a wax ci li nga xam ni moom moo jëm ci plateforme bi. waaw li may mën a wax ci plateforme ànd jéego bëri na. ndax bi ma lay suivre maa ngi dégg nga naan. Mhm. population bi nit ñu bëri léegi dañuy dem. Mhm. dem ci plateforme bi. Mhm. ndax njëriñam biñ ci gis. njëriñ bi bañ ko gisee dafay yàgg. ndaxte plateforme ànd jéego dafa tënku taxaw ci li nga xam ne mooy solos askan wi. muy solos jigéen ñi. ndax mu amoon taxaw seet seetlu ni mhm. euh, le plan Sénégal émergent mooy référentiel bi nga xamante ni moom la son excellence monsieur le monsieur le président de la république teg mhm. dafa am ay soxla yoo xamante ni dafa yiiteel jigéen ñi mhm. muy lu mel ni wàllu ñoom ci seen bopp ñu jàppale leen ñu war a mën a autonome te loolu buñ koy wax dañuy tàmbalee ci njalbeen gi ci formation muy nekk ci li nga xamante ni dañ koy wooye pal wàllum paju ki donc euh, mu ne tamit ci li nga xamante ne dafa dem ci wàllu dëkkuwaay. Mhm. mu nekk élément yoo xamante ne tey jii mënoo ko wax. Mhm. te doo wax jigéen. Mhm. te plateforme ànd jéego. tàmbalee liggéeyam. dafa nekkoon ci loolu. te loolu dafa nekk loo xam ne dafa soxal jigéen. soxal askan. kon plateforme ànd jéego. nit ñi tàmbale woon nañu bu njëkk. wan ko. Euh, ànd ak moom. Mhm. ak déggoog moom. Mhm. ci li mu nekk ci seen soxla. Mhm. waaye tamit ci li mu nekk soxla wu askan wi yépp. ndax ñëpp xam nañ ni. fépp foo xamante ni jigéen daf ca nekk. di ci di ci di ci tàggatu. di ci dugal loxoom. Euh, ndaw ñaa nga ca. góor ñaa nga ca. ndaxte xam nañ ni jigéen. moom mooy yaay. moom moo jur nit. Mhm. te mu li ci ëpp ci lépp loo xam dafa nekk ci développement. Mhm. jigéen moom moo ci nekk. Mhm. donc euh, plateforme ànd jéego. kuréel boo xamante ni daa dee ëmb ay jigéen ñoo xam ne ay jigéenu fàq tëdd lañu ay ñoo xamante ni def ñu lu soqali seen ñu dëkk defuñu lu soqali Sénégal kon ñooñu ñu mérité nit ñi tàllal leen loxo jox leen bopp ngir ànd liggéey askan wi ngir Sénégal jëm kanam ok gërëm ko sant ko dégg nga li mu wax. daa mel ni bu doon message la daf leen gën a soññ ci li nga xam ni moom moo jëm ci jàppale gi ngeen di jàppale ñi nga xam ni ñoom ñoo di askan wi waaye sama laaj rek mooy ndax tey euh, formation yi nga xam ni ñu ngi koy def fii ci Dakar jotul tey ngeen décentraliser ko mu dem ci région yi ngeen gën a tàggat ñi nga xam ni ñoo di femmes yi nekk ci diwaanu région yooyu. ci ci la ñu ne moom laa lay wax sànq ñu ngi ci. <laughs> Mhm. Euh, deuxième phase bi dañ koy décentraliser. Mhm. te dina dem ba bu ñuy wax région de Matam xam nga sore na. Mhm. te yematuñu ci jigéen ñi rek parce que première kii bi première phase bi. Mhm. amoon na ay jeunes dames yu doon ñëw. mais léegi dañ cee bëgg boole suñu doom yu góor yi. Ah, ñoom bu ko defee ñoom Léon mun a jot ci. li nga xam ni moom moo jëm ci li ni financement yeeg yooyu. mi ngi noonu mi ngi noonu kon suñu doom yu góor yi. ñoo ngi ñoo ngi. waay mbokk moom ci liñ bi rek salaamaaleykum. salaamaaleykum. ah soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. maa ngi leen di kontaan ci invitation bi mhm, tur bi. man la Salimata Gueye présidente des femmes commerçantes de Guédiawaye. Mhm. léegi man Salimata Gueye lu ma la bëggoon laaj rek man ci li ngay yëngu moo di commerçante nga nga ne ndax tey plateforme bi gis nga jàppandal bi nga xam ni indi nañ ko ci yow. waaw yàlla bi parce que nag daa am fu ñu jëlee ak fu ñu yóbbu. fan la leen jëlee ak fa la leen yóbbu. fu ñu jëlee mooy toog foo xam ne kenn xamuñu xamuñu lan la ñu war a mën a liggéey ba avancé. Mhm. mu daal di ñuy jël defal ñu ay formation. Mhm. defal ñu ay mutuelle de santé. Mhm. nga xam ne commerçante moom amul loo xam ne mën na fajee boppam. defal la mutuelle de santé boo xam ne foo feebaree dem faju defal la coopérative d'habitat boo xam ne tey jigéen ñi li ñu sonnee di daw di daan amuñu lu ñu jëndalee seen bopp kër. ay yoon kon plateforme yi dañuy képp koo xam ne bokkoo ci rek. Mhm. duñ ko rëcc. Mhm. kon ñun vraiment fi ñu jëlee ñun xam nañ ko. ak fi ñu mhm. yegg tey. kon dañuy def lu dul kontaan si émission boobu nga invité suñu président. ndax xam naa ñun ñëpp bu ñuy wootee du dugg. li mun la bëggee expliquer. ak li plateforme liggéey pour mu mun na ko wax fa doo ko mën a xam. xanaa dañ koy may rek. bàyyi bàyyi woote bi ba mu mun la wax li nga xam ne. jot nañ koy liggéey. bu ko defee Sénégal yëpp xam li nga xam ne plateforme Andi Diego liggéey na ko ci biir Sénégal mhm. waaye bu ñuy wootee di woote waat dina tax li mu la bëgg a expliqué mhm. askan bi nga xam ne ñoo ngi déglu lan la plateforme di liggéey duñ ko mën a dégg mhm. kon dañuy def la dul kontaan te jéggalu rek te ñu mujjee dugg ñu bàyyi taan mu dañu mën a wax ñëpp xam lan la ci plateforme di liggéey euh, mel na ni émission bi ñoom askan wi ñu ngi koy déglu waaye dañ lay bàyyi comme ni ko waxee ñoom ñu ne ñu bàyyi la nga déroulé fa plateforme bi am na fu mu dooree tey am na fu mu jëm tey fan la jëm. tey fu mu jëm mooy sama naatango yi wax nañ ko sànq. Mhm. ndax ñu ngi doon wax waxi formation. Mhm. kon bi ñu paree formation yi. bi ñu paree première phase bi nee naa la ñoo ngi jëm ci deuxième phase boo xam ne. Mhm. dootul yëm ci jigéen ñi waaye dañu ko ubbil jeunes yi. dañ koy yaatal bu ñu ne jeunes yi nag. suñu doom yu góor yaa nga ci suñu doom yu jigéen yaa nga ci mhm. yëpp pour yaatal rek ndax mhm. ñun ñëpp ay citoyen lañu mhm. ñoo bokk réew mi suñu paree ci formation yooyu aussi am nañu coopérative d'habitat comme niñ ko waxee sànq wàllu kër yitteel na nit ñi de wàllu kër kon ñun taxawal nañu ko ah ci nan mën nga ñu expliquer processus bi am nañu benn coopérative boo xam ne jigéen ñaa ngi cotiser hmm. te nag avancé nañ ci bu baax a baax a baax. Mhm. di ñaan yàlla rek ñu gaaw a jot euh, kër yi. Mhm. kon ñu ngi ci coopérative d'habitat bi ñoo ngi itam ci mutuelle de santé. Mhm. mais ci wàllum kër gi yooyu am na si yitteel nañ nit ñu bari yéen tey naka ngeen def ci biir plateforme bi ngeen mën a euh, teg euh, mbir woo xam ne wàllum kër lay doon. Ah, yaakaar naa ñi ñuy déglu est-ce que suba duñ dem laajte ji plateforme ànd jéego fu mu nekk ndax mun na nga processus su kër yi fan la dooree tey ba ngeen am ci li nga xam ni moom moo jëm ci papier yi yëpp. yëpp dañu koo jëlee rek ci plan Sénégal émergent bi. Mhm. ndax nee naa la ban ñu woowee di ñu tàggat. Mhm. dañ ñu ne woon Afrique dañ ñu ne woon secteur bi nga xam ne moo yor habitat ak infrastructure. Mhm. ñu ne nag fi mu nekk nii xam nga Sénégal góor ñi ñoo doon faral di jënd kër. waaye mbir moomu de dalee na soxal mhm. ñu ne nag léegi ndax coopérative jàppalante la mhm. boole suñuy doole ñu ne léegi nu ñuy def mhm. ay coopérative ngi taxaw ñun tam nañu fexe ba taxawal suñu coopérative ñu taxawal ko commission boobu mu ngi ci plateforme ba ca siège ba ñu ngi koy dérouler ok mutuelle de sant bi itam balaa nga def dara nga wér ku wérul taloo dara te jàppalante aussi dafa am ci paj mi mhm. defe naa politique bu fi chef de l'État teg la mhm. boobu itamit mhm. teg nañu ko teg nañu ko maanaam euh, léegi tey bu ñu xooloon ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci seen euh, plateforme bi lim bi boo ma doon wax lim bi ñaata la tey ci ci ci lim bi te ñaata la toll tey lim bi man rek bu ma seetee ñi bokk diggante Thiès ak Diourbel maa ngi ci 3000 femmes te sama structure mi ngi ci hmm. maa ngi femmes yoo xamante ne ñu ngi ci biir mhm. nga seet nag loolu diggante région de Thiès ak région de Diourbel mhm. waaw ñun ñu ngi ci biir kon tey boo doon wax mën nañu wax trente mille wala parce que suñu suñu organisation yi rek mhm. day fees dell ak nit te ba léegi nit ñaa ngi ñëw di adhéré ba léegi nit ñaa ngi ñëw di adhéré léegi ku bëgg a bokk tey yéen ci plateforme bi ndax euh, nu muy demee moom day yëkk di koppar indi walla euh, nan lay demee tey Euh, plateforme bi. Mhm. structure yi ñooy adhéré. Mhm. maanaam tey boo bokkee ci benn association. Mhm. ngeen ne da ngeen a bëgg a structure bi mooy ñëw adhéré. joxe droit d'adhésion. waaye du nit ki. non non fi ñu toll nii jëlatuñu nit ki rek. koo xam ne waa dañuy jël structure yi ndax ñu dañu bëgg a yaatal. dañu jël structure yi kon ñoom ñooy dikk léegi adhéré. noonu lañuy ñuy maanaam su ma ko xaymaa rek euh, ci lu mel ni Thiès. maanaam association yi nga xam ni benn bopp yi ñi ci bokk tey bëri nañ ba tey ñi nga xam ne ñoom ñoo jëm ci maa ngi la doon wax ci coopérative bi léegi ci biir asa plateforme bi ndaxte ngeen di joxe ay koppar xam nga pour am kër tamit faaw nga génnee dara sa sa sa poche nga am nga mën a am kër mm-hmm. accompagnement boobu nan la tey nan ngeen koy defee léegi dafa am commission boo xamante ne dafay toog di ko saytu mm-hmm. ba nga xamante ne ñun dem nañu adhéré ji ci ñi nga xam ne ñoo yor coopérative bi. Mhm. coopérative yi au niveau na au niveau national. waa léegi ñun membre lañu foofu. Mhm. jigéen ñi nag dañuy dugal. Mhm. ñu ngi dugal xaalis. ubbi nañu un compte boo xam ne. boo ñëwee adhéré ba pare dañ lay jox numéro compte bi ngay dem di verser. mais euh, plateforme bi tey dina am koppar goo xam ne. dina ko jox ñi nga xam ne ñoom ñoo di femmes yi jàppale leen ko ñu dem liggéey waaye bu nu paree dinañ fay ndax loolu euh, mi ngi ci seen biir plateforme bi jàppale leen ngir ñu jënd ay marchandises dem jaay yi bu nu paree maanaam delloo remboursé ndax loolu mu ngi ci seen biir plateforme bi. ci la ci la ñu jëm nii mhm. ci la ñu jëm ndax comme nee naa la formation yi presque 2017 ba 2018 bi la mhm. woon. Mhm. ba 2019 bi sax am na ñu ci defoon ay formation mhm. léegi ñoo ngi seet nag ba xam nu ñuy jàppale jigéen ñi mhm. pour euh, mhm. ñu gën a autonome ci seen liggéey ñu jël mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum maa ngi fii alhamdulilah tur bi ak foo ñuy woowee euh, maa ngi wootee Thiès ma bëggoon participer ci euh, émission bi bisimilah ñu ngi lay déglu déjà di nuyu waa Rewmi FM yëpp. di mhm. félicité euh, présidente Mani. jërëjëf muy sunu coordonnatrice. di euh, jaajëfal aussi képp koo xam ne jiitu na ma ci lii bi. ñu mhm. wax comme ci plateforme Ambidiego. Mhm. Euh, comme li ñuy wax rek dañuy delloo buum ca mboy mboy ba daal di félicité ki nga xam ne moom mooy initiatrice bi di madame Ndeye Zahra Iyane Thiam. Mhm. ndax plateforme boobu ak ci ko wuutu di présidente Malick Faye bi moom. bi ñu ko tëralee ba léegi plateforme bi. yàgg na. te li mu ëmb ci ay jigéen bari na. ndax mën nañ ni Sénégal pàcc boo jël secteur boo jël rek. am na ci représentation wala am na ku ko représenté ci biir plateforme andi jigéen pour wax ni rek mhm. euh, toutes les obédiences confondues ñoo nekk ci biir plateforme bi di ay jigéen yu am jom na mhm. yu am fulla seen bopp te it xam ci ñu jëm mhm. topp ci seen ginnaaw ñi leen jiite muy euh, ki ci njëkkoon a njëkk dafa newoon ba joxe leen ngay di jaxaraay yaan cam ministre ba ci présidente Monique Faye Thiandoum boobu ma leen di remercier ñoom ñëpp présidente Monique mi ngi koy wax léegi di plateforme boo xam ni li mu ëmb ci ay jigéen bari na lool lool lool lool lool. def mhm. ñu ngi fépp ci biir Sénégal. Mhm. di ñu am jom takk seen ay ndigg di bay seen waax ci mhm. bépp anam. naa rek euh, di delluwaat di leen félicité bu baax. Mhm. di leen wax suñu jàpp foofu la bu nu bàyyi. Mhm. te te ñaan yàlla rek projet yi nga xam ne jëmmal nañ ko xam naa suñu présidente boobu toog dina ci ñëw bu baax ay perspectives ndax junj na ko sànq wax xam mhm. am na nañu ay perspectives bu jëmaat ci ay renforcement capacité yeneen perspectives yi. di ñaan yàlla mu dooleel ñu ci baax. ci beneen bànn incha allah di leen félicité aussi. yéen waa Rewmi FM bu baax ci émission de qualité. di ngeen di def. sant ko sant ko gërëm ko xëy na perspective yi bari na projet yi nekk seen kanam bari na waaye dañu siy tënkal rek li nga xam ni moom moo jëm wax nga ko ci deuxième phase bi léegi man sama laaj mooy dañuy dem ci Thiès wa diwaanu cees xam nga as soxna yi bari nañ fa te Thiès dafa bëri ay ruq-ruqaat bëri na ay euh, diwaan yoo xam ne dañu sori lool ndax yéen a ngi dem ba ci biir askan wi di leen wax ci li nga xam ni moom moo jëm ci mbirum plateforme bi ak yokkute yi nga xam ni nag moo di soxna yi loolu lañ war a am ndax léegi kenn toogatul maanaam ku xëy rek yaa ngi takk say ndigi di liggéey jëmale li ngay jëmale li sa sa dëkk kanam ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum développement renforcement capacité ak surtout wàllum li nga xam ne moom moo jëm ci développement yi xëy na gis di ñëw fii dakaar di liggéey bari nañ torop ndax tey yéen yéen a ngi def euh, sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan yu jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaanu Thiès. tàmbali nañ loolu. Mhm. ndax euh, man ci sama wàllu bopp. Mhm. mën naa ne formation yi euh, sama kuréel. Mhm. am na ci ñoo xamante ne bénéficier nañ ci. pour xam euh, pour euh, plateforme bi. Mhm. li jëm ci plateforme bi. Mhm. dem nañu ba ay nootu. Mhm. am nañu suñu benn femme boo xamante ne dafay ñëw. te saa yi ñu wootee Thiès aussi jigéen ñi dañuy ñëw. comme ni ma la ko waxee rek dañoo dooroon dakaar mais incha allah ci deux mille vingt bi waa Thiès sax ñu ngi ci mais dinañu gën a renforcer. waa Thiès pour ñu gën a en ñu gën a bénéficier wu. ci activité yi nga xam ne platforme bi mu ngi koy dérouler. ndax yéen te loo uh-huh. looloo tax. Uh-huh. par rapport ak perspective yi. Uh-huh. Euh, ci deux mille vingt bi. ci kàntanu yàlla. bëgg nañoo dajale jigéen ñi. def benn journée bu mag. xanaa loolu lu bees la. waaw loolu dañuy daje sax nag. waaye ren itam dañ ko bëgg dañ ko bëgg a. gën koo yaatal. war nañoo daje kon. seet benn thème boo xam ne dañu koy waxtaane bu soobee yàlla. suñu paree. damay ñëwaat aussi ci formation yi. ndax formation yi ñu defoon. dañ doon wax ni ñuy defaree céréales locale yi. ni ñuy defaree pâtisserie. ni ñuy cuube. ni ngay gérer sa xaalis. yooyu yëpp defoon nañ ko. ni ngay def aussi parce que ci formation bi def na ni ñuy wax les normes d'exportation. Mhm. ñuy remercier bu baax. Mhm. Euh, Malick Diop. mi nga mhm. xam ne moo yor ASEPEX. ASEPEX waaw waaw. Mhm. mu jàppale woon ñu ci bu baax nag. Mhm. expliquer ñu ba nga xamante ne. ca la ñu jóge rek ne kon foog ñu dugal ko. ci module formation yi. ndax jigéen ñi itamit. bëgg nañu bu ñu. bu ñu organiser woo. ñu jël mbokk moom. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Ah, soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal ci émission gox bi. jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm. man la madame la ministre de la microfinance et de l' économie sociale solidaire madame Zahra Iyane kontaan nañ lool ci dalal la ci émission bi de. jërëjëf jëf euh, li li waral euh, dugg bi mooy félicité suñu mbokk moomu. Mhm. présidente Monique Faye Thiandoum. Mhm. Euh, li tax ma koy félicité mooy dafa nekk ambassadeur Sénégal Afrique. Mhm. ndax euh, moom moo newoon présidente femme catholique yi ne Sénégal yëpp. Mhm. ñu def fi assemblée général mondial de toutes les femmes catholiques ñu indi ko pour la première fois au Sénégal. Mhm. association bi daanaka biñ ko sosee léegi ëpp na un siècle musul dem Afrique. Mhm. moom yàlla may ko bi muy jiite kuréel googu assemblée général bi ñëw fii ñu organiser ko Sénégal. le président Macky Sall defal ñu honneur ñëw présider cérémonie d'ouverture bi mhm. ñu jugee ci associa ci assemblée générale bi ñu tabb mhm. xëy na ministre rëcc na ay honneur la tey nga toog ci plateau bi ministre woote di la delloo njukkal di la jaajëfal tey lan lay def ci yow tey bi nga dooree li nga xam ne moom moo jëm ci plateforme ànd jéego bi nga ciy def liggéey bi ba mu sañ dugg tey di la gërëm gërëm yi lan lay def ci yow tey waa ma ciy sant yàlla di ko gërëm moom i tamit mhm. ndax ku baax la ku gëm jigéen ñi la ku gëm réewam la mhm. ndax bi ñuy door nee naa la moom moo créé mhm. plateforme bi booba nekkul ministre moo dooroon plateforme bi gëmoon rek développement woo si nag jigéen ñi ñu ni tamit ñu nekk ak moom di liggéey ba tey mu nekk koo xam ne vision rafet na mhm. vision yaatu na mhm. te gannaaw yàlla dañu naan mhm. bu plateforme taxawee rek moom la bu plateforme taxawee moom la ñu ko ci gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla te yaakaar nañ ne est du ñu bàyyi. <laughs> dinañu leen di jàppale dinañu jàppale <laughs> <laughs> dinañu jàppale bu baax a baax. Uh-huh. ndax plateforme tey bu doon doom la mën nañ ne moo jur doom ji. Uh-huh. te doom ku ko jur di ko toppatoo di ko gunge ba mu màgg. Uh-huh. waaw loolu am na solo xëy na du ñàkk dina duggaat ndax buum bi dafa dog. Mm-hmm. Euh, yaa ngi woon ci perspective yi ñu bàyyi rek nga continuer ci nga xam ne moom moo jëm ci perspective yi. waa nee naa dañu bëgg a organiser. Mm-hmm. ci deux mille vingt bi. Mm-hmm. benn journée bu mag a mag a mag mhm. wut benn thème mhm. ndax comme ni ma ko doon waxee sànq formation yi xëy na am na comme formation technique yi ñu doon def rek baax na mhm. mais itamit formation pour renforcer waat jigéen ñi su ma jëlee exemple droits humains des femmes sànq bi ñuy door ñoo ngi doon relater président waa mbirum viol bi léegi ñun tamit dañu jël engagé wu nañu daal ci loi boobu. Mhm. engagé wu nañu. ci mhm. gunge jigéen ñi. Mhm. pour ñu xam seen droit. kon tey mën nañ xaar plateforme bi def tournée ci quatorze régions yi ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ci wàll yu ni mel dañ koy jël rek ci mbokk bi ci ligne bi. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. xëy dafa daggoon kon donc mën nañ xaar loolu ci quatorze régions bi ngeen dem ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum loi boobu. waaw bu ñu ci jógee itamit. Mhm. am na yoo xamante ne euh, bi ñu fi teg la. Mhm. te mu nekk lu baax. ñu gis ne mhm. luy suqali suñu gox la bu ñu jëlee problème mu environnement tey ñu ngi naan mbalit ñun bëgg nañ cee engagé wu c'est mhm. la protection de l'environnement mhm. au sens large mhm. ñu jël mbokk moom salaamaaleykum salaamaaleykum mi FM waaw soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm merci merci bisimilah euh, man la Adjara Fall Ndiaye nekk Sébikotane am contentement bu baax a baax euh, fii présidente Monique bi ngeen xam ne moom ngeen invité tey jërëjëf jërëjëf maa ngi koy nuyu au passage. Mhm. juste di wax ne c'est une femme très engagée. Mhm. tout le temps moo ngi nekk ci waar bi. Mhm. di liggéeyal pour Sénégal particulièrement pour euh, jigéen yi. donc euh, ñoo ngi koy féliciter bu baax a baax a baax ko encourager. tey euh, plateforme bi yéen a ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax foofu ca Sibi Xutaan bien sûr bien sûr parce que plateforme bi mu ngi wàcce mhm. à travers Sénégal yëpp bi ñu fekk fee mhm. man mii di wax ak yow maa ngi ci plateforme bi ci liggéey ñoo ngi dem di fekk ji jigéen ñi di leen mhm. xelal di leen yittewoo macha allah en tout cas gis nga sa bopp daal bu baax a baax effectivement gis nañ suñu bopp parce que ñun boo nee jigéen da ngay wax maanaam faju wax leer xam nga. Mhm. te plateforme ba nga liggéey loolu si bu baax a baax macha allah. Mhm. donc dañuy kontaan ànd ak présidente Monique. Mhm. ci liggéey bi. jërëjëf jërëjëf. Ajara. kon maa ngi woon ci perspective yi. kon gannaaw bi ma waxee journée bi. waxaat naa aussi ay formation ay renforcement de capacité ndax jigéen ñi. xam seen droit. bu ñu jógee ci loolu itamit. fas yéene nañu taxawal. benn euh, unité. Mhm. de de production. Mhm. loolu am na doole de. ndax bu ñu formé jigéen ñi. Mhm. ñuy yëngu. ci produits locaux yi nga xam ne. ñu jël mbokk moom salaamaaleykum allo salaamaaleykum. rëcc ñu continuer. kon euh, unité de transformation boobu. ñoo ngi ci. Mm. sori ngeen ci. so ñu sore nañ ci mm-hmm. ñoo ngi ci mm-hmm. te bu sottee incha allah di ngeen ko yëg mm-hmm. ñoo ngi ci te loolu dafa nekk suite formation yi bu ñu bu ñu gannaaw ba ñu formé jigéen ñi war nañoo mën a teg benn benn unité boo xam ne produit la koy ñuy yi ñu am fii yëpp lii meññ fii yëpp ci réew mi ñu mën ko faa indi di ci liggéey loolu aussi ñu ngi ci kon donc yéen plateforme bi maanaam foire yi yéen da ngeen di jëli seen marchandise wala li ngeen di defar da ngeen koy dem di exposé foofu di ko jaay ndax maa ngi la gis sànq yaa ngi wax ASEPEX ndax ASEPEX dafay gunge mel na ni moom daf leen di gunge ci li nga xam ne moom moo jëm ci li ni mel. ASEPEX euh, def ñu cee yee maanaam dafa ubbi woon suñuy bët ci loolu wax ñu lu baree bare bare mm-hmm. ndax comme ni ma la ko waxee sànq jigéen ñi ay jàmbaar lañu. Mm-hmm. fajar la ñuy jóg xaaju guddi la tëdd. Mm-hmm. mais pour xam léegi fu ñu jëm. Mhm. te ASEPEX gis nañu ne dinay gérer ay foire. Mhm. loolu dinañ ci dikk bu sobee yàlla. Mhm. comme ñun am nañu euh, information yëpp. dinañ ci dikk. unité de transformation bi aussi. ñoo ngi ci. mutuelle bi ñoo ngi ci. coopérative bi ñoo ngi ci. te dinañu gën a yaatal. kon ci deux mille vingt bi mun nañ xaar ni euh, plateforme Andi Jéego organiser ab foire. li nga xam ni moom ngeen doon liggéey tàggal ko seen ñi nga xam ne ñoo di soxna yi li ñuy defar ngeen daat koy exposé ci li nga xam ne moom moo jëm ci foire loolu dina nekk lu njëkk bu ngeen defee fii ci diwaanu Sénégal. bu soobee yàlla. yéen a ciy liggéey ñoo ñoo ngi <laughs> mel na ni plateforme bi itam li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum mango. xam nga ku ne boo ne mango sa xel day dem ci diwaanu Casamance mm-hmm. man foofu laa bokk du ma ko dëbb. waaye li nga xam ni jus bi. am na solo mango yi dañuy gis faral ni gis ni bu des fois dafay wadd dafay yàq waaye jigéen ñi am na ñoo xam ne nag léegi yeewu nañ ci ba dal la ñuy dem di liggéey mango bi sax moom la ñuy def jus di ko di ko transporter ci li nga xam ne maa la ko doon junj léegi ci foire yi di ko fa yóbbu di ko jaay ndax yéen yéen a ngi xalaat li ni mel. mango bi liggéey nañ ko. jus bi. <laughs> def nañu mooy transforme mooy module bi ñuy tuddee transformation des fruits locaux. <laughs> Mhm. te du nekk jus rek mais mangue séché sax dafa xew léegi. Hmm? te bu génnee bitim réew c'est euh, nit ñi dañu ko bëgg. bu weesoo mango bi tam màdd am na Casamance. waaw waaw màdd bi nit ñaa ngi koy defar. Euh, ñu ngi ci jus wu Dakar bi aussi ñu ngi ci. boo ñëwee ci mboq bi. mboq bi su ma xamoon indaale la ci woon la échantillon. waaw dina doon baax de. waaw <laughs> mboq bi aussi dañ koy gar. ba nga xam ne dina am bu dijj dina am bu sew dina am aussi bu mel ni day def comme couscous marocain loolu aussi femmes yi jàng nañu ko ci ci biir euh, ci biir plateforme yéen a ciy tàggataate bu baax a baax bu baax a baax a baax ñoo ngi ci léegi bu ñu jógee ci li nga xam ne moom moo jëm tey xool ngeen li nga xam ne moom moo jëm fi plateforme bi jóge ak tey fi mu nekk tey bu ngeen xoolee euh, seen ginnaaw tey ngeen war a jëmal kanam ngeen xool fi ngeen jóge dañuy jël ko mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum Ah, asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si ñu ngi lay nuyu. di la dalal la ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. waaye maa ngi ziar bu baax waay. ñu ngi delloo ziar. maa ngi ziar bu baax. jërëjëf ñu ngi delloo ziar. waa xanaa di participer ci émission bi rek. bisimilah. di ci am contentement trop wax dëgg yàlla. jërëjëf. ndax ñun jigéen ñi dañoo kontaan. ndax fi mu toll nii tubaarkàlla affaire dëkkuwaay bi moom kontaan nañ ci lool. Mhm. affaire mutuelle santé bi it mhm. ñu ngi ciy sant di ci am contentement mhm. ndax lépp rek boo amul nir doo am dara mhm. soo amul dëkkuwaay doo am dara yaatu ñu maa ngi di santaat tamit nag suñu ministre Zahra Iyane Thiam ak suñu présidente Mouni sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen kontaan nañ ci yéen jërëjëf merci beaucoup tey jërëjëf mu mel ni am na jigéen fu mu nekkoon am na fu ngeen ko yóbbu euh, su ma dellu see ginnaaw tuuti jigéen ñi maanaam yëngatuñ woon bu baax waaye tey contraire bi la jigéen ñi sax ñu baal ma sax góor ji baal ma waaye tey léegi daa mel ni dañoo puus góor ñi ci li nga xam ne moom moo di yëngatu bi lan la lan moo nekk tey secret bi fees nañu suñu place ndax mhm. dañoo innové ndax xam nga bu njëkk ba ku ne daan jóg demal boppam. <laughs> waaye li ñu naan di ñoo fee la force. <laughs> moo ñu dal ñun jigéen ñi. <laughs> tey boo gee boo duggee ci ci dëkk bi. fu nekk association nga fa. te bu ñu ne association rekk mooy boole seen xel boole seen xalaat boole seen doole boole seen am-am. loolu mooy secret jigéen ñi. ku fi demal sa bopp. booy réussir itam dina yéex. Mhm. mais bu ñu dajaloo rek. Mhm. day dal di baax. Mhm. te loolu la plateforme bi def ndax plateforme bi dafa fekk ku nekk. mu am xëy na ci li mu daan yëngu. secteur euh, divers secteurs activité nga ciy yëngu. mu ne kaay leen nu bokk. suñu ñëwee kii indi. kii na nan defe nii kii na xam naa fe ñu dal di boole. loolu mooy suñu secret. te yéen a ngi boole yéen a ngi tàggat yéen a ngi gunge. ñoo ngi gunge loolu yëpp ñu ngi koy def. kon donc tey soxna yi ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci plateforme ànd jéego euh, tey tàggat nañ leen ba ñu mën a tàggataate ndax tey ñu ngi xaar yéen ci plateforme bi ñi ngeen tàggat ba pare ñoom it génn dem tamit di tàggat ñeneen ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum développement. ñoo ngi ñoo ngi ci bu baax a baax. Mhm. ñoo ngi ci ndax euh, dina ñuy faral sax li ñuy def léegi. Uh, day am kuréel boo xam ne tey dafay am benn journée. Mm daal di invité ñëpp. Mhm. ñu ñëw toog ñu daal di wane li ñuy liggéey. Mhm. wala ñu génne benn benn thème boo xam ne dañu koy waxtaane mhm. kon nga xam ne léegi ñun dañoo bokk plateforme bi. Mhm. ku nekk boo demee itamit ci sa base da ngay daal di woo ñeneen ñi. muy muy système échange boo xam ne lu am am solo la mbokk moom salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ah, sëñ bi ñu ngi lay euh, nuyu yaay góor bu njëkk bu bu woote. pour <laughs> pourtant nag pour pourtant nag ci appel yi góor yi góor yi ñoo ci war a ëpp. ah ah <laughs> waaw parce que man dama euh, après dinaa présenté wu. Uh-huh. waaye li ma remarqué. Uh-huh. mooy ci mbirum euh, entrepreneuriat féminin. Uh-huh. xam nga entrepreneuriat c'est large. bien sûr na góor. comme am na jigéen. waaw waaw. mais liñ ci gën a ràññee. mooy jigéen ñi boo leen dimbalee. ñu ñu xarañ ci mbir mi ba mbir mi sotti. Mhm. ba koom-koom di dugg ci seen entreprise yi ak seen organisation yi. Mhm. yëpp dañ koy delloo ci njaboot mhm. te buñ ko delloo ci njaboot yi rek dafay dellu ci ñëpp. xale yi mag yi ndaw yi góor yi itam dañ ci bokk. donc muy ñoo xam ne tey jii nii euh, dañu war a dañu war a oot. maa ngi nuyu Monique bu baax. di rafetlu émission bi. émission euh, yi ngeen di def nii. day mhm. émission yoo xam ne ci ci ci ci la Sénégalais yi war a gën a euh, concentré wu. déglu xam mhm. tamit. Mhm. Euh, fan la ñu jëm ak naka lañ ciy jëmee man la docteur Malick Diop man maay directeur général bu e eh, jërëjëf docteur jërëjëf jërëjëf li loolu am na solo de dalal tey tey kon donc tey mën nañ ñi nga xam ni jàpp ni femmes yi nga xam ni yéen a ngi leen doon jàppale. tey ci li ñuy defar ñu daal di koy yóbbu di ko jaay ca biti réew naam bu fekkee ni sax jotoo ci def ay jéego. wa waaw li ñuy jàpp euh, mooy que tey xam nga entrepreneuriat. Mhm. ñu bari dañu naan entrepreneuriat féminin pourquoi ñu naan entrepreneuriat féminin parce que tamit euh, jigéen ñoo ci gën a xarañ. Mhm. donc entrepreneuriat lu am solo la. Mhm. muy au niveau féminin qu'au niveau masculin. mais dañu dañu remarqué. organisation. jigéen ñi. Mhm. moo ëpp solo. te mhm. jigéen ñi ñoom ñooy gën a. Mhm. Euh, def li ñu naan solidarité ci seen biir. loolu loolu c'est un constat soo constaté bu baax. entrepreneuriat masculin. ñii nekk ci ginnaaw. Euh, naam xëy na yenn saa yi dina bëri. mais ci ci femmes yi lay ngay ngay gën a gis regroupement boo xam ne dafay jël en charge l'aspect social. parce que ay ay coopérative la. ay natt la. Mhm. ay euh, ay ay regroupement yoo xam ne bu ci nekk dafay dafay indi li nga am boo indee li nga am. Mhm. Euh, nit ñi liggéeyandoor bu ñu liggéeyandoor après lépp delluwaat ci famille bi nga xam ne ñoom ñoo nànk ci loolu. Mhm. donc euh, lu may lu may seede tey ci nii. mais ci ci regroupement yi nga xam ne. dañu leen di encadrer depuis des années. ñun dañu ci njëkkoon ràññee. Euh, ay organisation yoo xam ne tey jii nii ci secteur yu bëri dañuy yëngu. ñu mhm. ngi yëngu ci euh, artisanat mooy mhm. cuir dépôt. Mhm. Euh, ñi ci ci ñi mbirum ñaw. ñi mbirum également transformation agricole. ak ñu bëri di yëngu ci yoo xam ne dañ leen di former ba pare ñu ñuy ñuy ñuy ñuy transformer. am nag ñoo xam ne dañu xarañoon balaa ñuy ñëw ñu. Euh, ñu ràññee ci tey plateforme bi. Mhm. te plateforme bi. Mhm. Euh, ñun euh, li ñu ko bi ñu ko njëkkee remarqué. Mhm. madame le ministre actuelle mi nga xam ne moom mooy yore économie sociale et solidaire. yore itam microfinance. moom lañu ñu gis mu nekkoon ci mbir mi di ci yëngu. ci gox yeeg goxaat ah ñu ñëw gis tamit ne tamit ci ci ci organisation bi mu bi mu bi mu tegoon. Mm-hmm. femmes yi macha allah. Mm-hmm. dañ ci doon gis seen bopp. Mm-hmm. Eh, si ci loolu tamit lañ commencé tamit di liggéey ak euh, ak organisation comme li ñuy liggéeyee également ak yeneen organisation pour surtout le l' aspect encadrement et tey euh, ces organisation euh, ñoom ñoo ëpp solo tey jii nii ci mbirum emploi parce que emploi nit ñi des fois ni koy xaymaa moo dul noonu. Mhm. su ñu jëlee emploi salarié rek. Mhm. boo ko xaymaam dans le monde entier. Mhm. c' est ab epsilon. mooy du loo xam ne dafa bëri. que muy États-Unis que muy France que muy Sénégal ko muy feneen. tey emploi. fi ñu koy gën a xaymaam mooy ci mbirum entrepreneuriat. te tey jii nii euh, des organisations comme euh, plateforme bi ni ñu liggéeyee nii. Mhm. noonu la ñu bëgg tey jii nii doomu Sénégal di ci di ci di ci liggéey. dafay mhm. lu am solo. Mhm. et donc euh, maa ngi koy félicité. Euh, directeur euh, dagg na moom euh, di ko gërëm rek ci teew te gi nga xam ni moo di témoignage yi nga xam ne def na ko moom it di ko jox dig daje moom itam bëgg nañ ko dalal itam fii ci li nga xam ni moom moo jëm ci ASEPEX gis nañ ni muy jàppale ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi di leen tàggat des fois di leen léeg di leen yóbbu ca biti réew di jaay li nga xam ne nag moom moo jëm ci koom askan senegal ci li ñuy liggéey li ñu naan euh, consommé local bi di ko jël di ko yóbbu ca biti réew donc témoignage bi ministre dugg directeur lépp ngir kañ rek ñu nga xam ni ñëw di plateforme bi lii euh, mbégte la léeg bu doon encouragement kon tey mën nañ jàpp ni di ngeen gën a yokk seen doole ngër mën a gën a mën a dem ci kanam waa ñuy sant yàlla <laughs> di gërëm tamit docteur Pape Malick Diop maa ngi doon wax sànq turam. Mhm. ndax dafa nekk koo xam ne ba nuy door dañ koo dem seeti mu accueillir ñu jàngal ñu lu bare. Mhm. ba ñu sooboo ci liggéey bi aussi def ñu gunge. Mhm. te ñoo ngi yaakaar ne. gunge boobu day wéy. ñoo ngi koy gërëm bu baax di ko sant. mel na ni ay simili moo ci des euh, émission bi jeex tey boo amoon ay kan kàddu yoo xam ne euh, ay cant la. ñan nga koy jagleel di di fàttali ni itam yow yaay euh, président coordonnateur ñi nga xam ne ñoo di askanu catholique yi nekk fii yëpp jigéen ñi yaa leen jiite kuréel googu lu mu und ci une minute lan la tey ak njëriñ li tey bi nga xam ne moo di njiitu réew dalaloon na ci ba yenn activités yi nga xam ne daaw ñu ko woon def ci Afrique léegi commencé nañ ko def ci Afrique lan lay def tey. waaw euh, yàlla dafa def ma yàgg yëngu. <laughs> ci association jigéenu catholique yi. Mhm. ma nekk Thiès. Mhm. yoroon fa kuréel boobu. Mhm. ñu ñuy wax Diocèse. Mhm. mu boole woon région de Thiès ak région de Diourbel. ba ma si jógee itamit ñu tabb ma ma jiite Sénégal. ma nekk ci ay at. ba ñu def ma délégué. ma nekk ma toogal jigéenu senegal yi. ca suñu siège Rome. bu ay activité amee. Sénégal yëpp. Mhm. bu fa réunion amee kuréel gu ñuy wax union mondiale ndax mhm. dañoo am fii kuréel mhm. Sénégal Mali am ba dëkku Afrique yëpp léegi nag ñu tànn ci ci réew yi ñoo xam ne dañuy ay délégué yoo xam ne ñoom ñooy xel di dem Rome di nas programme yi di seet évaluation yeeg yooyu yàlla def kon man man toogal fa Sénégal ba léegi nii man maa fa toogal Sénégal may sant bu baax di nuyu itamit sama mbokk jigéenu catholique yi bi ma ci jógee. Euh, depuis daaw ñu def ma présidente Afrique. Mhm. kon ma nekk ci réew yu réew yu bare. Mhm. kon yàlla def na tey maay liggéey ak ñoom. Mhm. kon ma ci sant yàlla. di gërëm. di di nuyu di gërëm itam suñuy kilifa évêques yi sept diocèses yëpp maa ngi leen di nuyu di leen di gërëm di gërëm aussi suñu accompagnateurs yi muy sœurs yi muy labbe yi ñu ñuy gunge yëpp ndax aussi Euh, dañuy soxla te ñoom toujours ñu ngi ci sunu wet mhm. dañ di soxla pour ñu di ñu xel mhm. bu fekkee plateforme bi la mhm. may santaat yàlla rek di gërëm bu baax ci turi palatforme bi yëpp madame la ministre Zahra Iyane ndax comme niñ ko waxee rek ba mu nekkulee minis la xalaatoon teg plateforme bi gis nga tey fi ñu plateforme bi indi mhm. te isi bàyyi wonu mhm. ñoo ngi ñaan yàlla daal di jëm kanam rek mhm. di gërëm nag membre yëpp ñu ci nekk ci plateforme bi ay jàmbaar kese ci nekk di leen di gërëm tey mën nañu ne dañoo constituer une famille ku gisul sa morom boo ko ku namm sa morom boo ko mën ne seeti nga seeti ko ñooy bokk lépp ñooy bokk lépp bànneex bu dikkee ñu bokk mhm. naqar bu dikkee ñu bokk mhm. kon defe naa ne loolu mooy famille mhm. waaw di ñaan jàmm ju baree bare bare en tout cas ñun sant nañ la bu baax a baax gërëm la itam ba ñu nangu nangulee li nga xam ne moom moo jëm ci invitation bi di fàttali mbokk auditeurs yi Cees nga jógee tey nga ñëw def li nga xam ni moom moo jëm ci émission gox bi di wane ne rek émission gox bi yemul ndakaaru rek dafay génn ba dem ci quatorze régions yëpp di leen dalal fii ji waxtaanee li nga xam ni nag moom moo jëm ci mbirum la développement. donc Mbemba Dramé la woon tey ci émission gox bi sant nañu mbokk auditeurs yëpp di sant itam ministre bi nga xam ni dugg na di Zahra Iyane am ak docteur Malick Diop. kon ce qui veut que ñoom ñu ngi déglu li nga xam ne moom moo jëm ci émission gox bi ci rajo Rewmi FM donc yii ni mel daf ñuy gën a motiver rek li nga xam ne moom moo jëm ci émission baax ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nas concept bi ñoom juumuñ ci benn yoon ba li nga xam ne nag moom moo jëm ci émission gox bi di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen dimanche incha allahu rabbi